may commencer nuyu aussi borom kër gi euh, Maïmouna euh, profiter de l'occasion aussi pour euh, remercier la 7TV euh, pour le soutien sans faille dans ce dossier migratoire là mm-hmm. parce que le fait de poser le débat rek euh, en terme de sensibilisation loolu damay wax ni soutien la ci jamono yi ñu toll nii nga xam ni maintenant pour rebondir à la question tout le Sénégal est endeuillé. Mm -hmm. profite pour euh, euh, jaal Sénégal yëpp voilà jaale famille yi jaale ñëpp aussi parce que tey toll nañ situation boo xam ne dama jàpp ni sax ku nekk mën ngaa jaale sa morom. dëgg parce que tout le monde est endeuillé. Mhm. Sénégal ñun ñëpp benn lañu. alors euh, ba tax na situation bu mel ni bu demee mu nekk une situation très regrettable voilà parce que la jeunesse se déchaîne. parce que amatuñ yaakaar euh, di tenter li may wax ni c'est un projet migratoire euh, inutile jaru ko parce que tey soo jàllee sax mhm. vu les enjeux politiques tey en Europe dañ lay delloo si wat kon tey jaru ko bon li ko waral nag euh, la cause li ko gën a intensifier aussi facteurs yi bëri na les causes là tamit bëri na. lan nga jàpp ni mooy facteurs yi. waaw xam nga boo contextualiser dans un pays comme le Sénégal dafa am ñaari type de migration te ñun benn bi moo nu incha y migration pour des raisons économiques et la migration forcée donc le cas du Sénégal euh, le migrant sénégalais il est économique moom dafay tukki parce que ndóol moo ko xoj dafay tukki parce que. y a boo jëlee jeunes yi y a le chômage endémique chronique structurel des jeunes dafay tukki parce que y a les de la mauvaise gouvernance bi nga xam ni dafay fàtt les perspectives d'épanouissement mhm. couche yi nga xam ni tey ñoo gën a vulnérable dafay tukki parce que yà a euh, les inégalités sociales toujours maa ngi ci cause économique yi euh, j'avais eu à alerter mm -hmm. que ni suñu daful ndànk l'ère post coronavirus ah dina indi une intensification de ces flux migratoires sous l'aiguillon de l'extrême pauvreté mooy mbir mi dina tar parce que coronavirus dafa plombé économie yi nous sommes tous incertitude totale économie yi gën a mag ci àddina dañoo nërmelu dans l'ère post coronavirus may faral jël exemple ci France euh, deuxième trimestre deux mille voilà France affiché na une dette extérieure boo xam ni depuis mille neuf cent quarante neuf la ko gëj am cent quinze pour cent de son PIB voilà nga ñëw yokkaat ci tey inflation yi nga xam ni moom la guerre ukrainienne bi indi en macro macroéconomiques dem nañ ba nga xam ni tey dëkk yëpp même la Banque mondiale avait dit que dans ses prévisions économiques mm-hmm. que la le premier semestre deux mille deux mille vingt bi toutes les grandes économies dañuy plongé simultanément mu feeñaat ci yokkute dund gi aujourd'hui Dakar est la capitale la plus chère de l'Afrique de l'Ouest avec un salaire moyen de cent huit euros tey soo jëlee l'indice de développement humain classement deux mille vingt deux PNUD bi le Sénégal dafa régresser de cent soixante huitième de cent soixante huitième place ba cent soixante dixième ak zéro cinquante et donc yu bëri feeñaat Sénégal. Mhm. mu nekk des facteurs yu accélérer le processus le, le truc nga jël tey une nouvelle donne c'est l'arrivée des pêcheurs. Mhm. boo xoolee départ yu ci bëri c'est dans les zones de pêche. dëgg la pêcheurs yi dem nañ ba nga xam di napp au-delà du fait que ñoom seen aada la. métier la aada la cosaan la ci la ñuy seen problème gisatuñ bokk seen bokk ci pêche bi parce que wax nañ ni un la zone économique exclusive a été bradée wax nañu la pêche industrielle dafay écraser la pêche artisanale wax nañu avec l'exploitation du gaz et du pétrole yaa y a une disparition de l'écosystème et de la biodiversité am na ñu gis yooyu yëpp mu nekk ay facteurs yu ñëw yokk ci la situation économique di ce pays la parce que il y a plus de deux ans on de développement dans ce pays là tout est politique. Mmh. Et cette situation a plombé l'actualité parce que doxul c'est un pays à 80 pour cent informel. Ouais. problème su amee gis nga dara doxatul alors dëkk bi gën a metti donc c'est une situation économique ndóol euh, la mauvaise gouvernance mu indi situation bi nii maintenant mhm. euh, euh, euh, indi rek ma développé mu leer parce que ñu kii mhm. léegi maintenant nga yokk ci les les les la pression c'est-à-dire que les causes socioculturelles cette pression au niveau des familles tutue la notion de am am et de tekki le contraire kenn bëgg ko mu jaral day ci géej gi et c'est là où en parlant des responsabilités damay wax ni nous sommes tous responsables nous nous parlons de l'État souvent di ko accuser c'est vrai l'État a une grande part de responsabilité dans cette histoire-là mais les familles nous aussi parce que migration dem na ba nga xam ni tey ñun c'est suñuy pesanteur socioculturel ku ku ku ku amul bokkoo dëgg la l'exclusion est la dans les familles dañ lay xeeb ba nga xam ni yow cette pression là tey mooy rey lan mooy am am lan mooy tekki loolu tey mu jur lii tey moo tax gis nga le phénomène est complexe. Mm. pour nga résoudre ko wala nga analyser ko il faut prendre ça de façon systémique. nga analyser ko aussi avec objection génn dans les chapelles politiques parce que c'est un fait social. Ouais. c'est un fait social d'où l'intérêt que sa vous nous sommes tous responsables. autant nous accusons les États autant. les les les familles sont responsables autant les institutions sont responsables parce que tey euh, nous sommes dans un contexte de mobilité le monde doit circuler mais ça ne circule pas circulation yooyu euh, moo indi ces embouteillages. d'accord moo indi drame ci ñëw